ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll ngeen di abonné a jot moo leen ngir mën a xam li mobiliser bu boo moytul soo demee obélisque doo am lu mat euh, trois euh, deux mille loolu nag mooy problème mu Sénégal nañ ko waxante ne nit ñi xam lan mooy priorité fii nag suñu plage ñun dañ fa yàgg di entraînement yàgg naa fi di ñëw ànd ak famille bi yëpp samay doom gis ñi ñëpp famille bi la les garson ñu ngi nii ñëpp ba ci ma princesse Fatima ak euh, le gardien de la maison Blacky ñun dañ fay yàgg di ñëw suñu ñëwee fii lañuy ñuy footballé def suñuy sport def suñuy appui avant bu ñu paree dugg ci géej bi fay daal dem ñibbi waaye gis ngeen li fi xew lii ce plus à présenter littoral bi yëpp jël nañ ko fii moom mooy ñun amatuñu fi droit lii lépp new fi woon y a mois en arrière new fi woon waaye ñëw nañ ko accaparé yëpp léegi nag comme lot de consolation lan la ñu defal ñun consommateurs yi mooy escalier bi ngeen gis parce que amu fi woon boo ñëwaan fii ab rang-rang nga doon wàcce escalier bi nga xam ne jarul sax deux cent mille moom lañ fi def moom la ñuy naxee consommat euh, euh, euh, les utilisateurs de la plage pour leur dire que maintenant le problème est réglé li ma waxee nag ci si may door sama waxtaan mooy du problème mu benn nit wala benn kuréel problème mu Sénégal yëpp su ko Sénégalais yi bëggoon mu arrêté tey dina arrêté soobee yàlla li ma ci wax nag ñaar la foofu laa ko conclure benn bi mooy ñi mu concerné ñi ñu jox fii bu yóbboo di la lance message bu yóbboo ñu bañ fee def seeni milliards parce que ñun de bu ñu yàlla dénkee réew mi ku fi tabaxoon dinañ ko génne parce que sénégalais yi dañu am accès à la plage et au littoral loolu mooy premier message bi ñaareel bi mooy les autorités administratives sëñ bi dama waroon bàyyi bas bi ñaareel bi mooy yi nga xam ne ñoom ñooy signé kayit ñu ngi leen di wax ni képp ki nga xam ne sa complicité sa responsabilité engagée na di nga rendre compte devant la justice te dootul nag faux départ yi ñu defoon tappale yi ñu doon def naan traque des biens mal yi nga xam ne règlement de compte politique la woon ku fi def loo warut a def yàgg naa ko wax samay discours samay meeting wàllu suuf si ku fi def loo fi warut def bu soobee yàlla bu fi Macky Sall jóge di nga dem rendre compte te négociation du am intervention du am kilifa du ci dugg di nga rendre compte parce que lu Sénégal yëpp moom ñetti nit ñeenti nit jël ko lekk ci ay milliards dafa dul yoon dafa war a jeex ci réew mi. loolu lañ ci mënoon wax ci lu gàtt di wax nag nii c'est gis nga fi mu ne nii ma commencé fële fële lañ ko jëlee. hôtel yi di ñëw di ñëw lépp jël nañ ko ba fi mu ne kenn amatu fi droit kenn mënatu fi def dara donc bi yëpp jël nañ ko ñun dans deux dans dans quelques mois mënatuñu fi ñëw naan dañ fi entraîné wu ah loolu moo ne woon li ñu bëggoon waxtaan ak ci lu gàtt la ca des nag euh, invitation la woon bu ñuy lancé sénégal yi pour la pratique du sport xam ngeen ni depuis quelque temps dañoo lancé ñun ay programme bokk na ci programme joxe deret les sportifs là yéen est-ce que joxe ngeen deret. waaw joxe naa ah, joxe man joxe naa. joxe woo gannaaw man xam naa man je fais partie de Pastef. joxe joxe joxe naa deret. yaa ngi nii entraîné ba. joxe ko joxe xam ma gisee gars yi rek joxe nañ ko. su ma gis gars yi bañ koy joxe xam naa ko. non ñu ngi fii centre de transfusion sanguine fan. ah du ñoom ñooy wër di la seet. mais ñun dañuy déplacé via euh, notre club là qui est Dakar Nakam on fait partie d'un dañuy dem euh, joxe. très bien kon pratique du sport dafa ànd ak loolu ku wérul munoo joxe deret lii suñu programme yi ñu engagé muy reboisement bi muy dem di nettoyer les plages les les lieux de culte. ak euh, les les cimetières euh, vacances agricoles yi nga xam ne lancé nañ ko te dès euh, semaine prochaine dinañu def lancement officiel bi loolu yëpp dafa ànd ak wér-gu-yaram wér-gu-yaram nag bokk na ci li koy suukat mooy la pratique régulière du sport ñu ngi invité tous les sénégalais ñu xam ni te ñu ga bañ a gaaw a màgget sénégalais ñaare surtout suñu mbokk jigéen ñi ku ci am 35 ans def ñaari maternité ñett rek jàpp nga ni léegi jeex na. ñooñu nag ñoo war a gën a def sport nous invitons tous les Sénégalais à la pratique régulière du sport du sport comme on dit un un esprit sain dans un corps sain loolu moo mën a tabax ab réew. kon loolu moo ne woon thématique bu gàtt bi ñu doon andi di leen wax nag ni euh, même dans le cadre du parti dinañu lancer bereen concept boo xam ne section yëpp commune yëpp dinañu jël tous les dimanches daje ci place bi leen gën a jege wala ci terrain bu leen gën a daj jege. dajale ñëpp góor ak jigéen ak ñëpp mu am un moniteur buy conduire les les trucs ñu def une heure deux heures de sport nit ñi doog a dem seen kër loolu moo naan lu ñu leen doon andi ñu ngi leen gërëm di leen sant kii nag di def film bi euh, El Malick Ndiaye gis ngeen biir bi wanal sa biir bi wanal sa biir bi dara newu fi dara dara newul ci tànk yi dara newul ci tànk yi gars yi jërëjëf